ni ñëpp ne tekk ku mënta ak si ba jege it fa nga toog ne la gënal nga toog àgg suuf teewlu dañuy tàmbali waxtaan wi te dañoo bëgg balaa tisbaar lépp daal di mat kon ñu ngi leen di ñaan rek ku ne na ànd ak ak dal incha allah lañ ko ci fasal mooy mbooleem njëriñ yi nga xam ne sëriñ bi fàggul nañu ko yàlla ko ci kenn ëppale waaw loolu dañ leen doon sàkkul di leen di leen ñaan kon sëñ Lamine nañ tàmbali programme bi da waxtu dafa xat bismillahi rahmaani rahim kon ñu door programme bi ñu jox Serigne Aline Gueye mu indi gone yi nga xam ni ñooy jànge alxuraan ci daaral daarul halimul xabir bu isbu tarixiya ñu ubbee njàngum alxuraanul karim ak kàddu yoo xamante ni danañ ko jël yëkkati ko mu jëm ci liggéeyub Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké kon Serigne Aline Gueye bismillah a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم aaya quraan bi nu dégg muy misaal ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yittewoo woon mbiru jullit xam nañu ne noonu yi la Seex Muhammadul Muntaqa Mbàkke mel ci xeet yonente bi yépp sallallahu alayhi wa sallam ngir fi ko jafe-jafe jullit ñi yegg ak ni mu xëree sunu ngëm ak sunu njub ak li mu ñu ëmbal ci yërmande ak ñeewoon te lépp mu doon ko sangam bu tedd ba di maam ji tedd ja sayxuna alxadim alayhi ridwanullah dëdd àdduna gii mu ñuy digal ak soobu gii mu ñuy soññ dara waralu ko lu dul yéene ñu mucc ak texe dañ déglu aay yi ci suratul aala bal tuutiruna alxayaata dunya ak aaya bii ci sooratu naziat wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa amma man xaafa inna aljannata hiya ginnaaw bu mun a xamalee ji ay yooyu ne al axira moo gën a àdduna ci bu nu méngalee seen xéewal te moo gën a sax ndax du jeex mukk xamal nanu ci aaya bii mujj ne képp ku ragal sa taxawaay ëllëg sa kanamu boroom ba tax nga tere sa bakkan ay bànneexam aljanna mooy sa delluwaay mooy sa kër gi ngay sax ba faw yal na ko sun boroom defal ci barkeb sunu sang bu tedd bii nuy siyaare tey nanu xam ni sunu sëriñ mu tedd ba moo raw ñëpp ci dëddu àdduna ba waa àdduna di ko sikkee ngir seenu kumple déglu lii mu leen tont ci xasiida xaalul yarkan ba xamal leen ni dëddu àddu googu ñi ngay sikkee mooy aw gànjar la wu tonewu woo xam ne di ko gàcceel mukk nii la ko waxee حفيظ ليس يؤذيني إن كان عيبي يسود فيه تميم فلا غائب نفيس ليس يؤذيني إن كان عيبي يسود فيه تميم فلا غائب نفيس ليس يؤذيني yéen mbokki taalibe yi nanu sant yàlla te xam ne fii ci keppaaruk sëriñ Touba gii mooy sooguwaay bi mooy rawukaay bi moom mi sunu borom def ci moom lu tax mu wax bayit wii di ñëw waaye duulu man dafa wax ni sunu borom def na ci moom xam-xam bu yeewenal xol di ko defar ba tax képp ku xëy di sàkku si si moom njubug suñu borom taxoo naa ko jéggal ak ak sell nanu jéem a xam sëriñ bi te dund ko moom mii day moo mën a fóot xolub daale ba mu set wicc te sell ba noppi yeggale ko ci boromam ci lu gaaw diglu nañu diglu bayit wii توسل أقلامي إلى الله بلا قلوة والله أبغى كما أغنى توسل أقلامي إلى الله عابدا بلا قلوة والله أبغى كما أغنى توسل أقلامي إلى الله عابدا بلا قلوة والله أبغى ضمعنا توسل أقلامي إلى الله عابدا بلا قلوة والله أبغى ضمعنا yal na nu yàlla dolli gàttanug ak tawfeexam ci barke Seex Muhammadul Muntaxa Mbàkke yal na fi jërëjëf euh, muy kaddu yi nga xamante ni moom la gone yi nekk ci daara lu mu xabir isbu tarxiya doon nuyoo ak doon ubbee ñu jox euh, sëriñ Sidi Omar Mbacke mu am kaddu yoo xam ne dina ko yëkkati ci turu sëriñ Youssou Diop jëwriñu daara isbu tarxiya auzu